mais kii moom bëgg nañu ko waaw. mais grand combat la. entraîné na nag bay bëgg a dee. mais loolu bërëm dafa assuré. li muy def ni kee bërëm dafa assuré. ñaar bi nag li muy def léewaatoo daw daw daw daw ne la caaw bu ko defee rëbb. sama xarit bi Ousseynou ku baax bi borom Wassare ah, rëm ñaabu ndaw ñaari xale yaa ngi ci diggi géew bi arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb ñaabu ndaw mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw rëm la nu lool arbitre baa ngi ñoom rëm a ngi kaabar abi baa ngi laaj ay jugeem Reum Niang laaj na Reum ba na laaj na Niang ba na abi di sifle na Reum a ngay demee wet Reum Niang bu ndaw Reum dafa am ngi taxaw di ko xaar Reum kàbbar na lewaatoo bi sori na ñaa taxaw na fii rëm taxaw ne ay waay bëre leen laala baaxu góor la rëm ñaa bu ndaw rëm a ñëw lum ñaabu ndaw ñu ngay lewaatu loxo yaa ngay laante kan mooy njëkk a dóor kan mooy njëkk a dóor ci ñoom ñaar waaw faaw ñu xeex tuuti moom munu cee ñàkk Reum a ngay dox ci kawam Reum ñaa Reum ñaa bu ndaw Reum da koo bëgg jàpp Reum jàpp na ko Reum da koo bëgg jàpp biij na ko Reum biij na ko Reum Niang bu ndaw Reum biij na ko Reum Niang Reum lam duñ ko forcé Reum door na Reum dooraat na Reum dooraat na Niang jël na ko Niang jël na ko Reum Niang Reum Niang duñ ko forcé rëm xale bi ngay bëggoon naanaan la waaye rëm tamit naanaan nga ay lëm rëm du waat na léegi ñaar ko bëgg a def da daan ñaar bu ndaw daan na di mbër. dëgg la ki daam kàttan. dëgg la yow ndaanaan nga ndaanaan nga yow. alhamdulilah jàmm ki booy faale sama mbokk la. yow ndaanaan nga. foo jëm yaa ko def. maa ngi tudd gars yi rek.